euh, par rapport a la Casamance. oui euh, c'est une bonne nouvelle. Mm -hmm. je pense que bu ñu Sénégal bu ñu demee ba toll ci niveau wu l'insertion sociale ñoo xam ni dafa am fu leen féetale woon. Mhm. ci wàllu ñagas ñagas bu am ci réew mi ça date de 1982. Mhm. bu ñu ba toll fii tey dama ne sant yàlla. et et sant yàlla félicité ci président Macky Sall. Euh, parce que comme on dit les les actes positifs on les sanctionne. Mhm. comme les actes négatifs. je pense que. de il y eu un pas qui a été franchi avec le président Wade. Mm -hmm. un autre pas a été franchi avec le président Sall. avant defe naa ba bi ñuy toll ci ci avant abu Diouf di wàcc. Mm-hmm. Casamance métti woon na. métti woon na de compliqué woon na. Mm-hmm. am nañu toujours en souvenance bu ñuy fàttaliku le général Dieng Abdoulaye. Ah, bi nga xam ni am na fu ci tolloon mais tey. je pense que bu ñu xoolee aussi ci wàllu géostratégie bi suñu kilifa bi di wax monsieur Ba dañuy xam ne am na fu àdduna bi toll foo xam ne y a une évolution qui impose certaines choses et cette évolution concerne la France à un certain niveau qui est en train de revoir sa copie moom malgré elle. mais elle est en train d'égal à égal. de revoir la donne neexu ko mais mu ngi mu ngi dina wut def effort bi. loolu nag aussi dafa am influence ci ci yenn affaires yi nga xam mu ngi mm-hmm. la Casamance. pour man c'est la plus belle chose qui mm. puisse arriver à la Casamance en général qui est une région du Sénégal et au Sénégal et en Afrique mm-hmm. tey le la Casamance peut être un grenier je ne vais pas dire de l'Afrique de l'Ouest mais de toute l'Afrique parce que xaj na fa mm-hmm. bu ñu amee possibilité fexe ba ñi nga xam ñoo doon teg nañu ngànnaay ñëw tey ñu ñii bay la ñuy def ñii fromagerie la ñuy def ñii leneen ak leneen sa waay loolu yàlla na sax yàlla na sax vraiment je je dañ ciy féliciter président Macky Sall dire aussi et accepter que depuis que le président Sall est là il y a eu une évolution positive par rapport à la à la Casamance ça quand même c'est